asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbooloo mi ñu ngi nuyu ñu ñu teew ci jitaay bi ñepp ngi jëm siñ Saliou di nuyu seigne Abdou Aziz mi tok seigne abdou Karim mbak mi tok di nuyu seigne sunu waajur mi seigne seigne Mat Sall baye ko ba Abdou Sall baye ko ba Mboro ah, sama sama waji seigne Abdou Khadir Jili Tabarakallah baye ko ba Louga ak ak jëwriñ dina yëkkati kàddu yi waaye damay wax ni li ma ta sant yàlla mooy sëñ Tuubaa lépp lu mu ñaan suñu borom suñu borom may na moo wax ne aatitani jamia duna salabi wali taqudu suula waxta tali bi kon bu ñu suñu borom dimbalee ñëw fii sëñ Tuubaa wax ne yow suñ borom maa ngi lay ñaan ku ma liggéeyal wala nga ziyaare ma na ko jéggal ay bakkaaram kon sañ na maa waat ci jëmi sëñ Saliou ne mbooloo mi teew fi ak ku ñëw xel kom suñ borom jéggal na la say bàkkaar bam set wicc ku ñëw xel kom teg fi si tànk suñ borom jéggal na la say bàkkaar ba set wicc wicc bés bi tey loolu nag dara mënu ko maye lu nit ab murit bi nga xam ne daa bëgg a texe xoqal bu kaw ala bii ni romb sëñ Tuubaa daa wax ne ab murit ñett yi moo koy jàllale bëggal sëriñ bi doo ko ziyaare doo ko jox addiya bëgg gi moo tax ñu ñëw ku ñëw fii xam ne addiya ngi fi كنيو في نك ليغي موم نانكو جالالي سيني توبا مو خال بوبام ني توبا لا عبد مريد صادق لهم بخدمه او بحب او هديات ييب نانكو داجال سي غورو كون نك نيغي سات بو باخ دي سات مبولم كو في تي واي رات نوا توبا تول ناخ نين بن ياكي نيو خيل كوم اك ليغي بار بن تاملي نيو خيل كوم اك ليغي بار وول جوروم ات لا تول ولا جوروم بنات ñu and ak suñu jëwrëñ jëlé ci yassane ciow fa tabarakallahu muy defal ak serigne saliw ak mbolam dong tebbi nek touba tul nga xamné fa tabarakallahu ñoo am na noo def benn daayira muy soppee Serigne Saliou waxtu wu ne ñu ñëw Touba ñu ñëw xel ko ci liggéey bi kon nag ñoo ngi ñaan ci barke Seexuna Cheikh Ahmadul Khadim yàlla na yàlla nangu ñaan yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp Serigne Saliou di daana wax na sallahu bu ko leeroon ne ku yaakaar Serigne Touba teg nga sa tànk ci sa xel kom dootu ko woote kon xam nga ne kooka wootewu ko ngir am amu adduna daana wax itam ne sallahu day ku teg sa tànk kom ëllëg yowmal xiyaam rus na mukk jàkkaarloog sama bor jàkkaarloog yow ci kanam sama borom kon loolu ay tegtal la yoo xam ni yow mi suñu borom dimbali ba nga ñëw xel koom wan ngaa xam loolu baax waaye kër ba nag daa wax ni fu ñëpp jëm jëm fa moo tal xel te moo gën a wóor murit bi kon doonte koy day raam it di dem xel koom xel koom nag benn baat la boo xam ne benn yoon la ñëw ci alxuraan borom xam-xam yi alxuraan yi xam nañ ko suñu borom ma wax ni wayu du xilkum waaye la ci tegu nag fa la wax ja nekk jannaatin tajiri min taxti yàlla anhaaru kon ñun ñoom jàpp ne waa àjjana la suñu borom ne ne waydu xelkum danaa leen dugal xelkum waydu xelkum danaa leen dugal kum jooju lool loolu xamuñ ko waaye bu la ko yaakaar mooy àjjana baat bi nag mooy xelkom waydu xelkum jannaatin ay àjjana la tajri yoo xam ne day daw ca suuf ca suufu xelkom ay ay dexi sew na yoo xam ne day saawaan di baawaan kon nañ jàpp ne fii ku fi ñëw am nga nimbalal suñu borom bu rëy rëy rëy rëy barke Sëñ Tuubaa nit bëgg na ko tey te mënu ko am fii nit bëgg na ko ba tey mënu ko am kon ñun ñi nga xam ne suñu borom dafa nu taw fi ñu ñëw fi nan góorgóorluwaat benn waay dafa dëkk tubaatul ne ma xel kom boo takkee ci dëkk te demoo ca ca liggéey ba da ngay am kersa parce que ñi dem bu nu ñëwee boo ñëw da ngay wayaat yi da ngay làqu sax doo bëgg gën koo gis kon nag nan gën a góorgóorluwaat gën a maat suñu liggéey ak suñu pas-pas ci Serigne Saliou te xam ne moom moom ndaw ñi yërmande ji daan na wax naan ku yàlla sama borom ma bind ëpp ma yërmande ci jaam yi te suñu borom juróom-ñeent fukki téeméer yërmande la bind benn yërmande moom la wàcc ci àdduna juróom-ñeent fukki yërmande ak juróom-ñeent yëpp mu ngi ko téye yërmande boobu ci la baay di yërëme doom ci la njaboot di yërëme inam njabooti waajur ci la yërëme doom maam ci la yërëme sët nijaay ci la yërëme jëlbaat sëriñ Saliou ne ku dul yàlla sama borom ma bind ëpp ma yërmande ci yi te li wax kii xam na ci dara dem na bàyyi jamono dem na bàyyi jamono nangootu sax ñuy dóor bàyyi ma yi ndax daana wax ne seen laahu de bàyyi ma yi ngeen lu mu guddi guddi sama yaram wi lay ko si te laaw de bari na yi ñu ni lu mu guddi guddi sama yaram wi lay ko si kon loolu kooku yërmandeem ak gëm-gëmam ak pas-pasam ak liggéeyam bu nu yàlla boole moom ñoo koy liggéey war nañoo santaat yàlla bu baax a baax a baax. dara moom ñëpp a yem njaag rek lañ koy xoolee muy seexul xadim mooñ fi dajale ñun ñëpp bayit wii Serigne Saliou la woon mënatumaa wax ci ay wax. ndem maa ngi waktu waxtu duma ko ci duggal muy bi muy woote xelkom da wax ne serigne Touba ci mujjëm soo ko indilee sa da fay wax ni defar takko la laaj te amatuma jot demal nga jangal ko ta yar ko ñi wax ne am nañ mag mu ñewon ne serigne Touba dama bëgg nga defar ma munu ko defar takko la laaj te amatuma jot waye ball faali jang defar naa ko ni mu ko rek ñuy ci kaddu gogo kon ñu xam ne lan mooy defar loolu rekk moo tax sëriñ Touba Cheikh Salihu dajale ñu ci barab bi barab bii nag kenn ku ci ñun si ñun daara dafa def ci yow kenn ku ne ci ñun rekk daara dafa def ci yow même bu la say waayur indiwul ci daara keroog bi nga garee jamono ku jàng alquran muy sëriñub daara moo tudd bu dee toqantal sëriñ daara bi moo koy def ci yow. sëriñ Saalihu Mbàkke tool yi mu xàll li muy yaatu yaatu jàng alquran moo tax mu sos ko jàngale alquran moo tax mu sos ko waaye ak nampatal ci doomi jullit yi muy jàngal alquran seeni seeni yaram miin tàggatu ba bu ëllëgee fuñ mën a nekk ci kaw suuf di liggéey di jariñ seen bopp ndax borom risala dafa wax ne abo zeydi bob risala ci demee ci muqaddima risala dafa wax ne fa innahu ruwiya anna tahlima li shikhar lil kitab allah yudfi ghadab allah neena ben xale bu dal basin mim da fay fay merum yàlla fi toli xel kamay ñaata xale ñoo fi xëy di fer iji ñaata xale ñoo fi xëy di jàng sumun ñaata xale ñoo fi xëy di jàng nisif wala rabo ay ñaata hisib lan fi jàng par bis muy alquran lolu lan la nu mën a ñun ñëpp kenn ku ne ci ñun ab julit xàqan nga lolu la gëm murit sadiq nga bëgg doon te sëñ Tuubaa yéena nañu ko te yaakaar nañu ko defal li bu nu sañoon ku ci ne ci ñun da nga tabax daara jël ay nit ñukoy koy jàngale alxuraan nga diko fay kenn ku ne ci ñun nak xeyna yalla dogulul du ñun ñëpp am koppar yu ko man waye kenn ku ci ne ci ñun war nga delloo daara njukkal ni ñu def nak ci delloo daara njukkal la nak serigne cheikh fi ñun ñi tok fi xamna ni kenn ko ci suñu da nga dem ba ci karamu Serigne Cheikh diko ko nga gis mbub mi mu sol yow nga gis ne yegne ne bu dee mètre yaa koy gën a kon mom limi liggéel yàlla subhanahu wa taala lay liggéel du roy bayam bu tedd ba Cheikh Saliou du roy maamam mu tedd ma Cheikhul Khadim ndax mo ne kitabul lay kitabun karimun min karimin mukarramin kufitu bil a'da'i wa zanba wa shirka téré bobu lay magal téré bi yàlla bobu nga xamne moy umul kitab moy mooy nday téere yi wàcc ci dëkk bi gëna sel moy umul qur'an xuraan nday dëkk yi moom rekk moo tax muy sonn moom Cheikh Saliou kon nag képp ku fi ñëw ñaq fi sonn fi sëriñ Cheikh la cay génnee bu génnee asaka ji lenn la ca jumaa ya lay dem lenn li mu dundalee ci donga yi ne la wóor ne sa loxo dugg na ci alxuraan waaye leneen lam waat ci ndax Cheikh Saliou damaa dégg sëñ Abibu Jóob wax ne daa wax ne bis daara yii may tabax aka tabaxaat ñu wax ko dey bu doon kenn fi jàngee mba mokkalee fi alxuraan ma tëjaat ko jaral na ma ko kon sëriñ Serigne Saliou alxuraan moo taxoon muy sonn li tax nag mu boole ci liggéey bii li tax mu boole ci liggéey bii mooy sëriñ Touba bi mu nekkee ca Mbakke Kajoor daf daan jàngale alxuraan yaakaar na ñun ñëpp xam nañ ni loolu moom ci mama xaaram seen maam ak maam Balla Aysa ak maam Mor Anta Sali lañ ko doon de mooy jàng mokkal alxuraan ak di ko jàngale. nee na muy jàngale ba si yàgg bis am lu ko ilham lu ko déey. dañ wax yu yonente lan koy def mu ne daa am lu ko ilham kaddu moo wax ak moom na ko bis ni ko tey bul ja rek yam ca waaye day ci boole yar ñun ñëpp dañ jàngee bay doo mooy ko ashaabaka bil himmati wala turabbihim bi darsi faqat kon leneen lam wàcc mooy liggéeyal Serigne Touba lim ñu mën a xëccal Cheikh Moussa Ka lam ko waxoon leer na ma jóg man te fas yéenee liggéeyal Serigne Touba. ku xam yàlla xam yonen liggéey Serigne Touba maqaamam Serigne Touba amul rawsu bu mu ko wan waaye lépp maa laa tax la mu raay Serigne Touba maqaamaatu aqtaabi dahaari bi kullihim ku leen boole woon peeseeg maqaam Serigne Touba mu wat leen ci ay mbootam te wat leen ci ay nattoom ne xam am naa ci tegtal yu wër ngir dem ak Touba mbokk yi lamp baaween muridiina Cheikh Ibrahima Fall maam Jaara Fall abaru jaalulaay maam Cheikh Ibrahima Fall babul muridina mooy sa bige Kumba Fall biram jige masangaay góor dëgg bàyyi lala Fall maami borom digal Fall bàyyi góor maam Cheikh Ibrahima Fall moo indi xidmatullahi maam Cheikh Ibra moo indi ñàkk jëriñu waaw Cheikh Ibrahima Fall babul muridina lépp lu nit doon jàng ci xam-xam jàng na ko ba ballalu doonoon faydu balluwaay ci xam-xam jasbul murid yakana ku jang grammaire arab nahwu da nga xam ni ki watot na tere yi waye la taxoon muy yeng di liguel Serigne Touba liko limam may sering am liguel Serigne Touba la Cheikh isa Diène limu am liguel Serigne Touba moko may Cheikh mamadou Lamine Diop Dagana li mu am liggéeyal Serigne Touba moo ko may mbokk yooyu loolee rek la ñuy xencu ci barab bii te dawaayir yi am ci jamono yii dawaayir yi fi am ci zaman bi ko ci laaj buñ dee ay ndaw dañ naan la suñu tur wi Seex Saalihu moo nu ko jox dafa jamonoonteeg ndaw ñi yéene leen ngërëmal Serigne Touba moo waral lii lépp. ba muy woote dana loolu maa ngi koy woote sama daara yi donte yeewu ma ko ma barkeeloo ko xam na ni mbooloom murit ñëpp xajuñu ci barab bi di fi jàngandoo di fi xëyandoo di fi wàccandoo waaye nag lii mu def ñenn ñi nga xam ne seen i tànk jotoon na fi ñu nekk fi mu leen tarbiya di leen jàngal ñenn ñi léeg ñu jóge seen i kër yi ndey ak seeni kër baay di mottali ñoom it seen seen liggéey fii yaakaar naa boo doon wër yoonu murit ndaw loo xam ne mi ngi dund bu tànkam teguwul xel comme bëriwut te fii Serigne Touba rek lañ moo fi nekk moom utud woon dara lu dul Serigne Touba Serigne Touba rek la doon dàkk wax naa ko fii ñun ñi nekkoon ci daara ji xam ñi néegu néeg ay néegi boppam boo ko mosaana bu doon ci jamono yi boo ko calculé du la jox 300000 la fay nekk si matériel la la ña fay nekk du am karo dër lay doon kon jariñ jullit ñi ak jariñ doomi murit yi ci Serigne Touba rek moo taxoon muy def lii bis nee na sant naa leen. ngir li ma fi ma jaare li ma am ci Serigne Touba ma mën koo liggéeyal ci yéen laa ko jaare kon ñoo ngi ñaan li Serigne Touba dël ci ku ko liggéeyal sunu yëngu yi ñu amee ko ci dañ ne waa kër sëñ Ngaari Sylla ñi Serigne Touba dafaa jaar ñu jël fas wa xont ko toppatoo ko barke barkeb xont gi ñu xont fas wa moo leen topp ñun ñi daagam daagame ci barabu Serigne Touba bi te leer kese bi nekk nan am yaakaar te fas si barke Cheikhul Khadim man de barab bi mo awma ci sik saaka luma xam la xale laa samay at wut mais barab bi xam naa ko bu baax li Serigne Touba waxon nak lay jema teje lam ne woon zur man tahib wa in satat bi kat wa ala min dunihi zahlun aw haaru rek la jema def dat na ziyaara ji nitub yàlla jarna na fu sori aw ci ay khumtu ay xur ba yegg ngir sàkku fa barke sunu ndaje mii yàlla nañ ci amee loolu la sëñ Tuubaa dëggal inna allazina saari'u li xidmati fa lahum diyaara wasal jannati la ci sëriñ Tuubaa ñaan suñu borom na ko maa ngi ñaan képp ku ma nga nga nga defal ko tawfeex mu am njëriñ ci aljana yàlla na ko yàlla defal mbokki taalibe yi ma tëj samay kàddu foofu ma tëj samay kàddu foofu di ñaan la dalee ci ma xaaram may maamaat Serigne Touba jaar ci mam Balla Aysa mi ci ngay mii booy dem da ko romb ba ci Mamour Anta Sali la cay barke ak xéewal yàlla nañ ci jot maa ngi ñaan ci barkeb Seexul Xadim ak ñi mu bokkal Mamour Anta ba ci Seex Masamba May Caam la cay barke ak xéewal yàlla nañ ci jot maa ngi ñaan ci barkeb Seex Mouhamadul mustafaa Tawamba ba ci Cheikh Mourtada may caat la cay barke ak xéewal yàlla nañ ci jot maa ngi ñaan ci barkeb soxna Fatou Dia Mbacke may taawam bu jigéen ba ci soxna may mun a suxraa may caatam mu jigéen la cay barke ak xéewal yàlla nañ ci jot maa ngi ñaan ci barkeb sëñ aadama Gueye mañ wax ne moo njëkk a yeeslu ba kañ wax ni moo mujjee moom la mujjee ngërëmal ñenn ñu ne sëñ Rijal Seck la la cay barke ak xéewal yàlla nañ ci jot barke Cheikhul Khadim noo ngi leen di wax la Serigne Touba barkee la woon ci baatub cant muy rabba samaa'i wal ardi rabbal arsi lakka saratu jërëjëf wa merci yal na nu barkeb Serigne Touba tàmmalee wotot sunu yëngoog suñu dal lépp yal na dugg ci Serigne Touba yal na dugg ci wajaxal jami harakaati lakka wa sakkanati taati bi fadlika kon jërë ngeen jëf Cheikh Abdoul Khadir eh, Cheikh Abdoul Karim Thioune Cheikh ah Cheikh Abdoul Khadir kon loolu xam naa yaa koy ma koy gën a mën a jàllale bisimilah bisimilah delloo la kàddu gi. sëriñ bi la ñuy delloowaat ak cant rek ci ànd bi mu ànd ak ñun ci liggéey bi di sàkk dong yëpp commencé ñaanal la di sepp Cheikh Mamadou Lamine Bara borom guy mbind ndax yàlla nga fi yàgg loolu te wér yàgg ànd ak ñun liggéey bi da yàgg ci am ay ndam barke suñ Tuubaa kon kàddu gi dama koy jox sëñ Babacar moom it ba Touba ànd ak sëñ Assane Thiaw mi nga xam ne ni kenn la ci defaru Serigne Saliou moom mii muy baax lool nag waaye Serigne Touba rek ko jox ko kaddu gi mu yëkkati ay kaddu balaa suñu yëpp ko defee ñu defante ñaan seen ñaan mu ndax li may wax mën naa ñu tam ci daayira yi jox seen addiya waaye dafa am ay jaayante yu métti yoo xam ne moom la gars yi def xoolal Serigne Soye bu Fall ak Serigne Cheikh Ndiaye nooru daayira yi ku mel bii si fi yëpp ñoo moo sëñ Saliou barke sëñ Tuubaa dafa am ay jaayante yu métti maanaam maas ga mel ni sëriñ Baara lay dafa bëri barke sëñ Tuubaa nga xam ne jaayante rek luñ ne sëriñ bi danañ joxe seen participe ba noppi am na ñoo xam ne naan man damay teg di donga yi ba noppi wëlbatikul eh, maanaam jaayante yi donga yi jaayante ma jaayante la ko raw sant na leen bu baax ay ñëpp sàll maa ngi jaajëfal quartier Serigne Saliou Serigne Khady Fall mooy jëwriñ ji ñoom lañ njëkk fekk Louga ñu leen wax quartier Serigne Saliou ñu ngi ne ci gannaaw am liggéey beeg lépp ba ci jëmm jii di jël wax ji ci liggéey boobu la bokk tàmbalee ci Serigne Saliou Louga ba mu daj ñoom ñoo fexe ba wutal fa Serigne Saliou kër barke Seexul Xadiim te loolu sunu sag la ci képp ko xam ne ab doomu la ñu leen di tiitaroo mu am fu mu toll ci noonu lool ñu ñaan ci barke Serigne Touba lépp lu ñu yóotu ci Serigne Saliou ko jot kon damay jox sëñ Basirou Diagne kàddu gi mu dalal sëñ Abdou Sall mi nga xam ne nii kenn la ci njaboot gi ba mu xam ne ba léegi mu ngi koy waxoon Serigne bi ba door a yeewee sëñ Basirou bisimilah. sëñ Basiirou ak sëñ Ahmed Ba mi nga xamante ni mooy jëwri ni fii di ngi leen di sant sëñ Jaase bàyyiwul kenn ak mboolem fu mën a jóge ñëw fii ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax di leen gërëm ndax liggéey bi kat ni ngeen ko téye rafet na lool te sedd na ko lool te ni mu seddee seeni xol sedde ko sunuy xol noonu la sëriñ bi xolam sedde ndax gis na lépp gis na lépp gis na lépp kon moom mi nga xamante ne umpaliwul dara te mu waral lii kon ñi ngi sant bu baax ñu ngi leen di sant bu baax man nag sama xel dal na lool lool lool lu tax mooy nit ñi buñ jaawatle Serigne Saliou daa am lu ko fi indiwoon mu nekk ci nekk ci nit ñi nan bàyyi xel ñi nga xamante ni ñoo bàyyi ko woon ca gox ya ñëw ci daara yi nan leen bàyyi waat xel bu baax li may wax damaa ñor lool nan bàyyi xel ñi nga xamante ne ñoom la seen waajur jëloon yóbbu woon leen ci sëriñ Saliou nan leen bàyyiwaat xel bu baax li waral wax loolu mooy alxuraan dafa wax ne wa maa kaana al mu'minuuna liyanfiroo kaaffatan fa a nafara min kulli firqatin minhum taa'ifatun liyattafaqqahu fi diin wa liyunziroo qawmahum wa izaa raja'uu ilayhim la'allahum yansuruun kon la'allahum yansuruun ji mm-hmm. mooy dong yi ñëwoon ci daara ji mm-hmm. doon tërbiya mm-hmm. ñu war leen a bàyyiwaat xel bu baax ndax ñu war a bàyyi xel ne ñoom ñi ñëwoon ci daara ji li Serigne Saliou bëgg sol na ko ci ñoom ñu doon doonaat ay jant ca fan ne kon na ngeen bàyyi xel ne yéen mbooloo mii fi teew ñii ngeen àndal ñu doon ñëwoon ci daara ji su ngeen leen toppee di ngeen làq ngërëmul Serigne Saliou ci ñoom ak comme ci mën a doon nag ndax li Serigne yu wax mi léegi mooy firnde ji ndax bi ñu woote xel ko daa am na tax mu woote bëgg jëriñ jàmm ci saayir ak baatin te bu nit bu bu bu ñëpp mën ñu fee dajaloo il faut que ñenn ñi ñooy ñëw mu def la muy def ci ñoom yàlla nan ko xam nag bala lam sol ci ñooñu buñ delloo ñooñu xam ko ci ñoom topp ci ñoom góorgóorlu ba mën a ànd ak ñoom liggéey bi ndax ñun ñii buñ defutoon li leen war kon yéen ñii du leen ànd ak ñoom ndax def naa ne boroomi xel rek a fi toog fii boroomi xel rek a fi toog ñu jaayante kon li am solo mooy liggéeyu Serigne Touba bu kenn xeeb ab dërëm. boobu la lépp fasu kon li ci xëccëg doomu aadama dara waaye nag ki ko defal nam xam ni maanaam ñi mu bor da koo am te ku ci ne boo deelee di ko xam ku ci ne ñi fi ñëwoon daaw kuñ ci joxoon micro mooy la yokk naa ba yëpp loolu mooy mooy saayir te saayir si wér na baati nag moom lu mu làq la téye kon nan te rafetal te rafetal ànd tey toppante. mu ci na ña leen topp ñen nek ci seen karam nan leen top te dañ leen a fakastal te bayyi routalé routalé baaxut mbolo mo gis likoy eggalé moy ñi jiit ñi leen wara top topp nan leen top te ba leen a fakastal fakastal baaxut nit du and ak nit mu jité ko mu war ko top diko ko fakastal loolu kenn du ko def bu kenn fakastal ñi ko jiite deug la nak ku ci def lo xam waru ko def war nga am ko bam ñew yo yaak mom kep ngeen waxtaan ak mom ba lépp jubbantiku ndax li du ay caaxaan lii duy caaxaan mbooloo mii guru tay rafatal kun fi meuna tuddu ci ci loo fi def mo dab sëñ kun fi meuna tuddu lo fi waaye meuna def mo dab sëñ bi te day dak ak bëggam dong nan góorgóorlu tay rafatal tay nango topante te leen fi bëgg amin amin amin amin امين امين هذا جاء رمل رمل الايد وقتل اسود ما بعد لما اصلا ان كان صابرا قالوا كن ينزل خمسة لا تقاتل الشقفين الدخل المغربي amul lenn maay ci jaay ji. mu dëkk kër goo xam ne seen jaamu. te mu dëkk dootu ko ci seen ak seen jaaruwaay. te saako li ci biir loolu nag. saa borom nangul estet yi. ak jëf yi. ak xalaat yi. ak yéene yi. amin waɗanake jeyɗon mbalem sone ka baya amin alasam wala ami baɗile ɗimelle yatana hasana magi ñaan safaram namone santikana yokkal nu nag askan amiin amiin day yees nay xel amiin xalaat lu am nga ren tey ëllëg amiin yokkal nu wërsëg amiin nga xalaalan tey ban lay amiin olhar